Ndeye Tické maa ngi lay nuyu di la dalal di la gërëm di la sant ak délégation bi nga àndal te ma bokk ci d'abord mais comme maa leen di recevoir moo tax ma des fii maire Mati moom kooku moom dama kanaan mention spéciale te fu ñu toll dañ ko war a baru àq ndax muy maire boo xam ni fu ñu ko yëkkati mu jóg topp ñu di gaja gaña gi ànd ak ñun te du mer du tàyyi te su difficulté amee ñu daw res dem ginnaaw lépp ñu jël ko yan ko ko mu di ko gérer avec diplomatie merci beaucoup mère Mathie maa ngi nuyu euh, madame na ba jàlloo di nuyu Khady Diop Seck sama xarit sama doomu ndey di nuyu Fatim di nuyu noom Umu Njaaj di nuyu sama càmmeñ Idi Mbay ak soxnaam ak ñi mu àndal ñëpp di nuyu waa fayu ñi ngi fii di nuyu waa cité ouvrière waa nuyu naa leen bu baax a baax su ngeen gisee tey euh, jataay bi dafa weesu tee débat dafa weesu ñu nekk ci zone di ci pôle di wax parce que man nag Mariam Diop si la ah di nuyu tam ah di nuyu ana Idrissa Ndiaye di nuyu maa yaayu Mouhamed yi ana Mouhamed yi maa ngi leen di nuyu di nuyu association yëpp di nuyu sama doom Moustapha Ngiraan seen naa la di nuyu communicateur yi ak journalistes yi soo gisee sama wootee lu tax du tuuti c'est parce que dama di politicienne di présidente de réseau réseau boo xam ni c'est présent partout dans Thiès Thiès yëpp réseau baa ngi fi ndax niñ ko liggéeyee depuis 2013 muy RELF financement yi ñu am yëpp amul communicateur amul leneen ñëpp ñu ngi ci biir financement REEF te financement yi dañu gëmoon suñu bopp dem utali ko suñu bopp ñun ñëpp ñoo laxasaa yu dem uti suñuy financement ndax nag bëgg a jàppale président Macky Sall parce que nag en 2013 terrain bi metti woon na lool lool lool jaxasoo mais ñun jigéen ñi ñu ne nañ leen laxasaayu dem pour am lu ñuy motiver suñuy moroomu jigéen ñi pour ñu toog ci partie bi

sama mag di sama xarit nuyu naa la euh, relf bi bi ñu koy créer metti woon na ñu créer relf di ci liggéey ci développement fii def nañ fi ay formation yu dul benn du ñaar jigéen ñi ñëpp xam nañu ni ñuy defaree saabu jigéen ñi ñëpp xam nañu ni ñuy defaree eau de jigéen ñi ñëpp xam nañu ni ñuy transformer et cetera et cetera di ànd di daanoo di jóg ba ñu koy lal ñu ne nag ñun suñu réseau bi réseau de développement la mais à la fois politique parce que mi ngi mel réseau bi train la ñu teg ko ci raay yi te raay ñaari raay lay doon benn raay bi di politique beneen raay bi di di di développement ñu jël kenn fekk may liggéey ak moom ñu ne ko kaay ñu pare ne la parce que booba Thiès xamuñu ko mu metti lool ci moom ñu ne ko ñun jigéen ñi dinañ la samp ñun jigéen ñi ñoo ànd ak moom def consultation gratuite doxe Normandie ba gouvernance joxe ji suñu mémorandum ñu ne ko tey ji suñ fi jógee Cees yëpp nañ la xam ñuy dem ba yàlla def lii mu def mu tàqalikoo nag ak président Macky Sall te ñun président Macky Sall moom la ñu gëm c'est parce que moom moo doon moo doon servir de relais suñu diggante ak moom moom la ñu doon gis pour yaakaar ni dinañuy jottali suñuy message donc may wax kooku li mu am ci suuf lépp ñun la li mu am ci kaw lépp président Macky Sall la donc suñu demee ba mu am nu mu demee raga dama yaakaaroon ni dina maandu toog ne pat mais du def fu ñu jaar mu jaar fa naan wote leen tout sauf président Macky Sall léegi nag ñun ñi ko utaloon mbooloom mbooloo mi yépp xëy na fu mu dem kat dina fa fekk benn nit ñaari nit ñu naan ko waaw waaw mais mbooloo maa ngi ci ñun nag parce que suñuy mbooloo la te dañoo defoon suñuy moyen pour téye leen ma leen di ñaan bu leen kenn distraire ni ñu gëmee président Macky Sall bëgg ko ba ne ñun fu mu ñu xolloo foofu la ñuy xool ndax président républicain la Sénégal moo ko ñor dama leen di jox benn exemple bu tuuti ci sama koñ bii ma dëkk sama waa koñ yaa ngi nii toog ñii ñëpp ñi ngi ci université bi ñii ñi ngi ISM ñii ñi ngi ISEP ñii ñi ngi fu nekk ñii ñi ngi région médicale ñëpp a ngi liggéey macha allah année scolaire soo ñëwee fii amul benn jigéen buy gérer détail ñëpp a ngi liggéey lu ko waral mais ñun fi mu nekk nii suñu dixième bi mais cité universitaire la cité universitaire la dixième am na ay temps boo ni dixième dama la naan duma ma danaan du ma dem yàggul dara ndax sàcc yeeg bëyu yeeg yu kenn xamul président Macky Sall bu mu ñëwee dafa am mbébét bu mu am ci dixième maanaam dixième nekk comme femme résidence jigéen ñi fi mu nekk kenn toogatu ñëpp gis nañ ci seen bopp te loolu yëpp ci plan Sénégal émergent bi la plan bi de fii la ci Sénégal oméga wala des trucs comme saa yoo xam ne ñun dañ koy dégg rek mais fii léegi plan Sénégal émergent tax duma ci wax lu bari dinaa bàyyi ak sama sœur Ndeye Tické mu développé ci mais daal li ma leen di wax mooy dëgg la dajaloo nañu man wóor na yàlla bi ma ko bi ma ñi ma woo bariwul mais ñoom ñoo ma yéene ñoo ma gëm nii ngeen ma gëmee ngeen de démultiplier wu comme ba ñuy teg réseau ba nañu démultiplier woon quartier par fa ñu jaaroon ngeen jaar fa dama bëgg suñu centre de vote amul problème mokk na rumb dem camera xam na ci dara mais yeneen centre yi waa kër ab Ablaye taxaw nañu te tey jii tey jii su ma amee nag doole dëgg dëgg dëgg ci parti bi ba taxaw di wax ginnaaw yàlla ak sama doom Ablaye Fall ak le ministre Augustin sama doom Ablaye Fall ak le ministre Augustin Tine ñoo ma dooleel sinon kon politiquement jeexal naa ndax am na ñu fi nekkoon am neneen nuñ doon doxe ñoo xam ni pré euh, intérêt président Macky Sall ñoru leen seen ay intérêt personnel moo leen ñor te lépp leer na. léegi nag ma leen di ñaan ñi jëleegul seen carte électeur ngeen dem jëli seen carte d'identité te bëgg naa au soir du 30 juillet ñu lang ko lang gu mag a mag a mag a mag fecc ba mu neex woy ba mu neex. fi mu nekk nii bu leen kenn distraire liggéey bi jeexagul premier ministre ñëw na fi démb gis nañu mobilisation bi du ñu arrêté tant que campagne bi jeexul duñu ñu arrêté dinañ ko def këroo kër quartier quartier goxoo gox dinañu dox dinañu wax ba jël ndam li jox ko euh, suñu suñu tête de liste Augustin euh, Séré Dia mu jël ko teg ko ci loxo président Macky

femme bu Thiès Ouest commune Ouest moom mooy trésorière waaye moom mooy aussi présidente REF su wootee tee déda tee débat bu mel nii man dama naan xam méga tee débat la du def lu dul gërëm ko ci sant ko ci félicité ko ci parce nag dañ ku ne da ngay natt sa bopp sa mbooloo woote ñu wuy si la boo ko leblewul mënuloo ko am loo leble démb la tey soo ko dikk nit ñi fay la te boo dañ na buñ la la fayee sa bor nga mer la nga leble woon du baax du baax kon yow tey Marème mën nañu wax ne kenn nag

et particulièrement ci ay élections maa ngi leen di nuyu bu baax di tambalé nuyo bi ci suñu sœur tout à l'heure ki nga xamné moy suñu sœur wax na amna ay activités ñuy xaar depuis très longtemps parce que bo ba légui comme ni ngeen ci nekkee ñun ñëpp ñi ngi ci amna ne bu ngeen jógee fi amna fenen fu ngeen jëm ñi ngi jëm ñun tamit R100 mais ko xamul li nga koy def day wax ne dama la dafa tax donc lolu motax ñu bayyi lepp lu ñuy def ñew wuy ci suñu sœur ndax engagement ak ni nga xamanteni non lañu joxe comme cieur di nuyu Adja day Tické bi nga xam suñu mak la mom tamit. nekk la coordonnatrice des femme de Thiès Ouest du comité électoral ñu gis engagement am parce que engagement mi ngi yam ci nit foo dem fekk ko fa ci yu mel ni loolu dafa am solo di nuyu suñu yaay bi nga xam ne mooy Mati Ndiaye di nuyu la stratège suñu tante tout à moom la ko Adja Ndeye Tické wax nekk suñu soxna professeur ñu lay yónnee nuyoo ci suñu professeur Amath di nuyu suñu yaay Ndey Fall bi nga xam ne suñu doyen la ci li nga xamante ni tey ñu ngi ciy yëngu di nuyu suñu sœur Maymuna Sène seen nañ ko fi sànq di nuyu Umu Ndiac di nuyu képp koo xam ne yaa ngi fi monsieur Diallo ñu ngi lay nuyu ci engagement bi di nuyu aussi la ravissante Miss Thiès di ko ñaanal mu nekk Miss Sénégal parce que bu nekkee Miss Sénégal dafa mel ne Thiès moo nekk Miss Sénégal et Lolo, je pense que Dignan aussi aussi déjà Ndeye ticket. je sais que comme mi ngi fa woon démb ay ñun ak ñëpp ñu gën ko jàppale pour qu'elle se prépare mieux afin que mu mun a dem indil trophée bi ñu lay encourager te nga moytu xale yu góor parce que Miss la ñuy gis donc di wax ne lii nga xam ne moo fi am dafa am solo maa ngi nuyu communicateur parce que lépp lu ñuy def ñi ngi ci suba ngoon guddeeg bëccëg te nag wolof Njaay day wax ne roof yàqul jën te yéen nag lu baax yéen lu neex yéen a donc ñi ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne nag mbiru ay réalisation ak yooyu dañ cee sonn di wax parce que guddeeg bëccëg président def na nang li président def yéen ñëpp xam ngeen bu la trente waay waay waa Thiès nañu jël seeni responsabilité

mais loolu war na mën a tax nag ñu delloo ko njukkal tey ñu jox ko li mu soxla mooy lan une majorité à l'Assemblée nationale te loolu su amee dañuy gën a dëgëral ay doomu Thiès te bu ñu dëgëralee doomu Thiès président Macky Sall lañ dëgëral te bu ñu ko dëgëralee mu gën a investir dans cette ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen bal àq te di leen balu àq. mu wax ji sax wax dëgg yàlla mat na sëkk macha allah mënoon naa ñàkk. madame la président ñu ngi kontaan bu baax Marème di wax ne lii day ñun bettuñu ci yow ndax nag yaakaar naa ne ba nuy xamante du tey waaye ci luñ la xam ci lu baax ci luñ la xam ci nit ki ak a teey ci luñ la xam mooy ak a bari yërmande te it nag tollootuma buur géwël ca la may waxe kenn gis naa yàlla te mënumaa gis Seydina Mohamed madame la présidente ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax dila wax demal bon vent lu bax rek ngay am nit ku bax li ñuy jaaxal moy mu am lu bon waye ku bax lu mu yëkëti lu bax rek lay doon fi sama ay xar rek nyokham fi nekk ñoo xam ne ba nuy ànd dafa yàgg mi tok suma doon wax fanu andek lañu la lu ñu fi jóge xagne dinañ am benen occasion doon andak mom ba mu ne ma est-ce que yow nit nga ndax macha allah ma bëggoon egsi fii kon jërëjëf jay naa ci kanam ak kanam dina baax Adja Mati dañu gis soppante bëggante te xamante wunu mu xam sama jëkkër lu yàgg yàgg yàgg keroog ba may ànd ak moom di ànd ak sama borom kër da dafa gestu ne ko yow foo jëm mu ne ko ah xamoo ne kii mooy sama soxna kon foofu rek laa ci yem kon may wax ni li baaxoon tey ci man mooy. kenn ku ci nekk mu mëne ñëw ba ci yow jox la cër nuyu la tatagal la ndax séq naa ko yéen muy xale yi muy communicateurs yi muy artistes yi fi teew muy jigéen ñi muy góor ñi bàyyiwuma kenn maa ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu lu ma waxati damay guddal te su ma guddalatee damay gàddu ax moom mës a ci ASC yi maa ngi dëkk fii Thiès r donc ASC defar man ci ñu ko sos laa bokk donc pour nous doon sensibiliser les populations de Hersent dañ doon def ay mbaxal débat loolu moo tax tey ma ni damay indiwaat mbaxal débat mais mbaxal débat bi nag bon Mariam dafa màgg nek ambassadrice wër dëkkoo dëkk ba ñibbi si ñëw nag di jàppale réewam di jàppale président le président Macky Sall du ki mu ku bëgg ci sama xol di kuma ma gëm sama temps yépp ak sama énergie dama koy def di massifier partem depuis ma ñibbi si Sénégal en 2012 2012 ba léegi tàyyiwuma tooguma maa ngi jàppale président Macky Sall di ko politigal di ko dimbali di ko massifier par thème bi ndax dama ko gëm ndax dafa nekk président boo xam ni vision dafa leer vision dafa leer ba pare mu nekk républicain gëm Sénégal lu yëpp pour Sénégal lu ko jëmele kanam la ci lolu nak moo tax ñun ñu naw ko man day ku ma naw la suma politique nak parce que diplomate la woon mais depuis ma ñibbisi ba légui man kay koy di di véhiculer ses pensées di expliquer nit ñi le plan Sénégal émergent di ci wax luma ci xam lolu mo taxone tay ji ñu sommes ci di boucler deuxième semaine de campagne bi di la ci troisième semaine bi tay nak ma ni damay woote dama woote ci sama pôle fi Thiès Ouest sama pôle aussi sama réseau le réseau pour l'émergence du leadership féminin loolu mo waral tay pratiquement toutes les femmes de Thiès étaient présentes ñom ñëpp ñi ngi fi won parce que dama yag di liguey ak ñom ci développement et aussi gis ngeen le personnel de la résidence d'Abi parce que dama am entreprise toujours bon dama ko wax c'est une entreprise de femmes il y a que des femmes manchallah, ñi ngi liguey entreprise ba ngi prospérer retomber yuñ ci am dinañ ci def social japp nak di massifier la partie di ci jàppale nit ñi bu baax a baax xëy na loolu moo tax tey ngeen xaw a jaaxle yaakaar ni tey débat bi c'est un peu différent des autres tey débat mais c'est que dama di nitu nit ñi kooku moom dama koy gërëme waa Thiès di leen ko sante ñoom ñoo ma bëggal seen bopp moo tax li may wax sama politique fii Thiès yomb na parce que ñoom ñoo ma bëgg même yenn saa yi damay xaw a toog sax ñu ñëw soññ ma ne ma Mariam jógal parce ñun yow la gëm dañoo bëgg nga jàpp ci te gaa maa ngi ci jàpp de tout le temps mais ñoom dañ may gën a encouragé maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp